أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله مقلب الأعوام عام بعد عام والشهور بعد الشهور والأيام بعد الأيام يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والصلاة والسلام على الهادي البشير والسراج المنير وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد yéen sama mbokk jigéen ñu tedd ñi sama soppe yi ci buur bi tabaraka wa taala ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp ñëpp islaam di leen wax asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu di leen ziyaar di leen ndokkeel ci weer wu mag wi ñu nekk tey seen mbokk seen soppe Seyda Hafsa Lo moo dellusiwaat ak yéen ci seen waxtaan bi ñuy amal ci weeru koor muy buyuutu saimaat ci yeneen tomb yu bees yoo xamante ne bii incha allah tey moom la ñuy fàttalante ak yéen waaye comme niñ koy baaxoo di def rek tomb bu ñëw incha allah dinañ fàttali tomb ya ko jiitu woon tuuti ci tënk doogu dugg ci bi nga xamante ne bii moom mooy bu bees bi ngir ñi nga xam ne yële raw na leen incha allah ñu mën koo dabuwaat ci yeneen yu bees yi. waaw comme niñ ko waxee woon rek ci suñu njalbeenu waxtaan ñu waxoon ne nañu sant buur bi tabaaraka wa taala gannaaw bam ñu mayee ñu fekkee weer wii te mu xañ ko suñuy moroom yu baree baree baree bari ñu waxoon itam nañuy moytandiku ñun jigéen ñi surtout di togg ay togg yu bari wala di préparer ay lekk yu bari yoo xamante ne bii daanaka am duñ ko mën a lekk ba mu jeex dañ koy mujjee bett ji ca mbalit ma te weeru koor bi ko yàlla di farataal ci ñun xiif moo taxoon waaye lekk taxul woon mu di ko farataal ci ñun ñu ne woon itim yow mbokk mu jigéen mi na nga moytandiku di nelaw nelaw yu bari ci weeru koor rawatina nelaw yoo xamante ne bii daf lay poussé ba ngay faat li nga xamante ne bii moom mooy waxtu julli wala ngay jóg sax di julli ba pare di delluwaat ci nelaw ndax weer wi du weeru nelaw weeru njëkkante la ci lu baax weeru jaamu buur bi tabaaraka wa taala la kon da nga war a fexe def sa kemtalaay kàttan ba yàlla kontaan ci yow balaa weer wee jeex incha allah tey ñu ñëwaat ak yéen ci yeneen nasaaix yu bees ñu lay wax ne yow sama mbokk mu jigéen mi bul def bis bi nga woor ak bis bi nga woorut mu yem bis bi nga woor na am différence bu baax a baax a baax a baax ak bis bi nga woorul ndax bu fekkente ne bii bi boo woorulee yaa ngi dugg lu sa yoon nekkul yaa ngi déglu loo lu lu lu jaaduwul yaa ngi xool lu jaaduwul yaa ngi wax lu jaaduwul kon boo wooree fexeel bis bi nga wooree na am différence ak bis boobu ndax boo wooree bul bàyyi sa biir kese woor bul bàyyi biir bi kese woor boo wooree na say nopp woor bu ci déglu musique bu ci déglu lu bon bu ci déglu ay caaxaan boo wooree na say gët woor bul ci xool naka sudul noonu boo wooree na sa làmmiñ woor bul ci fen bul ci jëw te bul ci rambaaj boo wooree kon na nga nekk koo xamante ne bii kuy mën a jaamu yàlla ngay doon na nga nekk koo xamante ne bii ku dal ngay doon ci sa bis yi nga xamante ne bii da nga koo woor ndaxte bu fekkente ne bii dangaa woor te teewul lu bon yaa ngi xool lu bon yaa ngi déglu sa làmmiñ mi ngi wax naka su dul noonu wala mi ngi jëw wala mi ngi rambaaje ah kon de sa koor googu daani kaam yow xiif ga rek nga ci am ak marga comme ni ko yonente alayhi salaatu wasalaam waxee ne bari na ñu woor ñoo xamante ne bii duñ jëlee seenu koor lu dul xiif ak mar rubba saimin laysa lahu min siyaamihi illa al jua wala atash bari na ku woor waaye amul ci kooram lu dul xiif ak mar loolu kese la am ci koor ga waaye amul ci leneen ndax day fay jàpp ne xëy na gémmiñ géeg biir bi rek ñoo war a ñoo war a woor yeneen cër yi ci des war ñoo woor aha kay mbokk yi sa cër yëpp dañoo war a woor boo wooree say bët daa war a woor lépp lu bon bu mu ci tege say nopp daa war a woor lépp lu lu jaaduwul bu mu ko déglu sa làmmiñ daa war a woor lépp lu xaraam ci ay wax bu mu ko wax say cër yépp dañoo war a wóor say tànk bu mu dem ci lu daganul say loxo bu mu laal lu daganul kon soo wóoree say cër yépp dafa war a wóor waaye su fekkee biir beeg laamin bi kese nga wóorul nga wóoral ñi ci des ñoom seen yoon nekk ci yeneen cër yi contrôlé wu leen kon yow sa koor googu amee woo ci lu dul xiif ak mar te ñu moytandiku mbokk yi surtout ñun jigéen ñi ñuy moytandiku bu baax a baax a baax a baax li nga xamante ne bii moom mooy télévision bi parce que bu ñuy lim sàcci sàcci koor yi sàcc yi nekk ci koor di këf kooru nit ñi di agressé nit ñi di nangu seeni koor maanaam seeni tiyaabay koor wala di ko wàññi sàcc yooyu télévision bi daf cee bokk télévision bi daf cee bokk ndax weeru koor bi daanikaam amul benn programme boo xamante ne bii dafay amal importance yow daf lay amal importance yow sama mbokk mu jigéen ñi bañ nañ ko sax ba seen sketch yi nga xamante ne bii dañuy faral di ko teg dañ koy teg ci heure bi nga xamante ne bii mun naa wax ne moo ëpp importance ci sa journée yow mi nga xamante ne bii da ngaa woor muy ban heure muy bu ñuy waajal ndogu ndax da ngay gis ne daanikaam sketch boobu dafay jeex rek ñu ne dog leen dog jot na te yonent bi alayhi salaatu wasalaam lim ñu jàngal mooy ki nga xamante ne bii dafa wóor jamono yi muy dog lu mu fa ñaan yàlla da koy nangu bokk na ci jamono awqaat waxtu yi nga xamante ne bii dañu fay nangu ñaan mooy jamono bi nga xamante ne bii dangaa wóor di ko dog kon yow bu fekkente ni bii dem nga ba sketch boobu ngay seetaan moo xam 5 minutes la wala 15 minutes la wala 10 minutes la yoo xam ne dafa jiitu heure ndog bi demal nga jàpp ba set nga toog ci place bi nga xamante ne bii foofu nga war a ndogoo nga dékk sa boroom tabaraka wa taala say loxo soxla yi bari nañ de soxla yi bari nañ trop trop trop tolof tolof yi bari nañ ñaanal yàlla mu faj say aajo tolof tolof yi bari nañ ñu tege ci sa kaw ñaanal yàlla mu teggil la ko waaye déedéet dañuy toog rek jàkkaarloog télé bi ci loo xamante ne bii seen sketch yooyu lu ci bari lu ci ëpp dafay saboote sax weeru koor bi lu ci ëpp dafay saboote weeru koor bi tey dañ ciy wax ay kàddu yoo xamante ne bii jaaduwul ci yow en tant que ku wóor nga déglu ko jaaduwul ci yow en tant que ku wóor nga déglu ko dañ ciy mel yenn saa yi ay melokaan yoo xamante ne bii jaaduwul ci yow en tant que ku wóor nga xool ko ban importance nga ciy nga ciy nga ciy la la amal ban njëriñ ngay jëlee ci sketch yooyu nga xamante ne bii da nga koy seetaan lu jiitu ngay ndogu wala moo xam sax même bu dee ci bëccëgu weeru koor bi yëpp ban njëriñ la la amal bu dee 10 minutes la bul ko xeeb bu dee 5 minutes la bul ko xeeb wallahi lazim 5 minutes boobu nga xamante ne bii da nga koy toog di ko jàkkaarloog télé bi di seetaan loo xamante ne bii day wàññi say tuyaabay koor da lay jural ay bàkkaar waaye du la yokkal dara ci say koor ci ak yiw 5 minutes yooyu nga ngay xeeb naan 5 minutes yi kese la naa ko seet naa ko naa ko toog seetaan ko 5 minutes yooyu mbokk mu jigéen mi jural na la ay yiw yiw yiw yiw yiw yoo xamante ne bii bala ngaa xam ni mu toll ëllëg yowmal xiyaam nga dem bañ jóoral la yiw yooyu ba nga di ko xeeb ndax tey ci biir cinq minutes yooyu ñaata yoon nga ci mën a wax laa xawla wala quwata illa billah laa xawla wala quwata illa billah yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na laa xawla wala quwata illa billah benn trésor la ci trésor yi aljana yi kon ñaata yoon nga mën a am ay trésor ci aljana ci cinq minutes yooyu ñaata yoon nga ci mën a wax subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim tam yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ñaari baat yooyu de dañoo oyof ci làmmiñ waaye dañoo dañoo sopp yàlla daf leen a sopp te dañuy diisal balance su jaam bi ëllëg yowmal xiyaam ay jëfam yu baax ëllëg dañ koy diisal ñaari baat yooyu ci cinq minutes yooyu ñaata yoon nga ko ci mën a wax subhanallahi alazim wa bihamdihi yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na képp ku ko wax am nga benn garabu tàndarma bil aljanna ci cinq minutes yooyu ngay toog di seetaan loolu mbokk mi ñaata yoon nga ci ñaata garabu tàndarma nga ci mën a am ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen ci ay azkar yoo xamante ne bii mun nga kaa wax ay junni yoon ci cinq minutes bi nga xamante ne bii da ngay toog di seetaan loo xamante ne bii amalu la benn njëriñu àdduna waxuma laak nag njëriñu àllaaxira kon ñu moytandiku ko bu baax a baax a baax a baax ñu moytandiku télé yi bu baax a baax film yi ñuy seetaan ci weeru koor gi série yi ñuy seetaan ci weeru koor gi dafay yóbbu sax ruxaanee bi nga xam ne moom moo nekk ci koor cafka gi gi nekk sa koor gi nga war a yëg daf koy yóbbu waaye boo wooree ngay nekk di jaamu yàlla di tudd yàlla da ngay yëg koor gi ni muy neexee ci yow doo yàkkamti sax mu jeex ndax ni muy neexee ci yow te ñu bàyyi xel ne suñu bët yi ñuy xoolee sketch yooyu wala série yooyu suñu nopp yi ñu koy dégloo suñu xol yi ñu koy teewluwee bu ñu fàtte ne alquran nee nañu kullu ulaika kaana anhu mas'ula inna sama wal basara wal fuaada kullu ulaika kaana anhu mas'ula nopp gët ay gët ak sab xol wala sab xel nee na loolu yëpp ëllëg yowmal xiyaam yàlla dina la ko laaj bu ci nekk nan nga ci nan nga ci doon déglu wala lan nga ci doon wax wala lan nga ci doon teewlu bi nga nekkee ci àdduna rawatinaa nag ci weeru koor te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yow jaam bi sa tànk yii doo ko séqi ëllëg yowmal xiyaam lu dul dinañ la laaj ñeenti mbir te bokk na ci mbir yooyu sa dund gi te lan nga ko paase sa dund gi ci lan nga ko paase da nga koo paase ci seetaan ay sketch ci seetaan ay série yu amul benn importance ci seetaan ay film yu bon da nga ko seet da nga ko paase ci toog ci télé bi en tant que ku wóor même ku wóorul sax waaye waxu rawatinaa ku wóor di déglu ay musique di seetaan ay jigéen yoo xamante ne bii dañoo futteeku wala ay góor yoo xam ne dañoo futteeku seeni awra nekk ci biti ah bu fekkee da nga koo paase ci loolu ëllëg di nga ko toog rencontre ko sa kanamu borom waaye da nga koo paase ci toog di jàng alquran da nga koo paase ci toog di déglu loo xamante ne bii daf lay yokk ci sa diine daf lay jëriñ ci sa diine daf lay yokk sa xam-xam da nga koo toog ci da nga koo paase ci loo xamante ne bii wala barab boo xam ne da nga faa toog di yedd say mbokki jullit di leen waar di leen delloosiwaat ci buur bi tabaaraka wa taala ah ëllëg di doo ko réccu incha allah kon mbokk yi lii laa leen di dénk tey di ko dénk sama bopp di leen jox xam naa di daje ëllëg incha allah tey nag xam naa ne dinañ ci yokk ñaari question yoo xamante ne bii wala ñetti question yoo xamante ne bii daf ñoo dikkaloon incha allah ci ci bis bi mu nekkoon laaj bi nga xamante ne bii moom mooy laaju bis bi ki njëkk ki di laaj ne ba xam bu fekkente ne bii soxna si dafa laab jigéen bu fekkente ne bii dafa laab ginnaaw fajar maanaam julli nañ fajar ba pare salaatu nañ ba pare fekk dafa dafa gisoon mbaax wala dafa àndoon ak déretu wasin waaye boobu mu laab ci ginnaaw boobu ba xam dafay woor bis boobu wala du ko woor mu daal di koy fay waaw ñu koy wax ne rek loolu moom boroom xam-xam yi am na ñaari wax yoo xamante ne bii moom lañ ci wax ñu njëkk ñi wala ku njëkk ki dafa ne moom jigéen bu fekkente ne bii dafa laab ginnaaw bi ñu jullee fajar ba pare ci weeru koor nee na dafay woor bis boobu li des ci bis bi daf koy woor waaye nag du tere da koy fay ku mel ne imaam Ahmad waaye wax bi nga xamante ne bii moom mooy wax bi gën a wér li ñu koy wax moom mooy bis boobu bokkul ci bis yi mu war a woor parce que njal benn bis ba fekku ko woon mu set heure bi ñu war a imsaak fekku ko woon mu set comme gannaaw heure u imsaak passé na maanaam heure bi nga xamante ne bii ci la ñu war a arrêté lekk geek naan gi ginnaaw heure boobu weesu na ba pare muy doog a set kon dafa war a continuer ñàkk a wóoram bis boobu bu ko defee bu weeru koor gi passé incha allah mu daal di koy fay kon wax boobu mooy wax bi gën a wér mooy bis boobu bokkul ci bis yi nga xamante ne bii daf koo war a woor ndax tàmbalik bés ba fekku ko woon mu set keneen ki moom daf ñoo laajoon ne ñu ndax ki nga xamante ne bii dafa amoon doom ànd ak dereeti wasin ndax ndax dina dina woor wala muy julli bu fekkente ne bii dafa set avant muy am 40 jours waaw ki nga xamante ne bii dangaa set ci dereeti wasin avant ngay am 40 jours bu fekkente ne bii ci weeru koor la dangaa war a woor dangaa war a julli tamit te it sa borom kër am na droit joteeg yow parce que jamono boobu dangaa laab maanaam nekkul ne par force rek dangaa war a toog ba nga am 40 jours ngay doog a julli wala ngay doog a kii 40 jours yooyu àpp la rek buñ ko jox ne moom mooy àpp bi nga xamante ne bii gën gaa bari dereti wasin foofu lay yam waaye tekkiwul ne da ngay dem ba foofu bu fekkente ne bii set nga avant ngay am 40 jours yooyu bu dee weeru koor la da nga koy woor boo bëggee woor tamit say sunna wala nga bëgg a fay sa koor da nga koy fay te da ngay julli incha allah léegi ñetteelu question bi moom ki ñu ko laaj daf ñoo laajoon ne bu fekkente ne bii da nga da nga woor ba timis di waaj a jot ngay sentir mu mel ne dafa am luy génn ci yow dereetu mbaax buy génn ci yow wala ngay sentir douleur bi nga xamante ne bii moom mooy wane ne yow mi yaa ngi gis si mbaax mais dara génnul ci yow yaa ngi sentir yaa ngi koy da nga koy sentir nii rek mais amul dara lu génn ci yow ndax bis boobu da nga koy fay wala doo ko fay mbokk mi ñu lay ñu koy wax ne bis boobu moom du ko fay mbokk boobu dañ koy wax ne bis boobu moom du ko fay parce que gisul dara ci deret bu fekkonte ne bii deret ji génn na moom ñu mën a wax ne te fekk jant sowul ñu mën a wax ne kon li mu waroon bis boobu yàqu na daf koy fay beneen yoon waaye maa daama dara génnul ba ñu euh, ndogu ba pare kon mm, bis boobu bokk na ci bis yi nga xamante ne bii wér na euh, koor kooram wér na ci du ko fay wallahu aalam kon mbokk yi tey lii lañ leen indiloon incha allah ñu di leen jox dig daje ëllëg incha allah aqul ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh